ndeysaan liiru jaan nee na ma ngay jooy oh liiru bul jooy liiru liiru bul jooy liiru bul jooy ku ne xam na sa digganteeg uh, Balla Gaye numéro 2 ndeysaan liiru bul bul jërul jooy nag jërul jooy muñal rek muñal rek jërul jooy uh, Balla dafa daanu ki ko daan war na ko mën a daan uh, Boy Niang numéro 2 lii réew est la mujjee booleeg Boy Niang rek Boy Niang wax dëgg moom li mu def waa Guédiawaye moom naqari na leen trop waaw naqari na leen trop surtout yow waxoon ko de ne woon nga Guédiawaye kii Boy Niang lan mooy problème am ak waa Géejawaay ay eh, ba Lirou Diane nag lamb nii la vraiment ñu ngi encouragé bu baax a baax kii di Balla Gaye numéro 2 waaye tamit di félicité Boy Niang léegi daal nañ tëgg euh, Boy Niang Modou Lo ndax Ama moom it euh, lambam ci doon xaar moo Gris sax la 5 bi nee nañ Ama dafa blessé ba lamb jooju du mujjee am digganteem ak Gris Bordeaux waaye lamb ji nga xam ne daal amateur yëpp ñu ngi koy xaar mooy Euh, Modou Lo ak Boy Niang numéro 2 lamb jooju moom promoteur bu ko tëgg moom ndaw lamb ju rëy war na mën a neex Modou nag ginnaaw bi ñu tëggoon euh, digganteem ak Ama Baldé sax ba Modou Lo blessé woon après loolu déggaatuñ si dara waaye Ama Baldé mooy moo Gris Bordeaux lamb jooju euh, cat dugg na ca ndax Ama Baldé blessé na kon nag liiru noppi rek massa massa bala demal defarwaat am nga place ci lamb ji ba léegi. gaa yi naan Balla na bàyyi yaram mi dafa yàqu loolu c'est faux Balla bu liggéeyee defar wa Balla bu liggéeyee nekkaat ci làmb ji Bécaye wax na leen ko dem Bécaye Mbaye wax na leen ko démb nee na Balla Gaye dafay Balla Gaye yaram mënatu la baaxaat loolu ay wax ju yàqu la rek fii mbër boo màggatul boo liggéeyee am doole mbër boo màggatul boo liggéeyee am doole boo toogee nag moom euh, di lekk avance euh, jour làmb ñëw boo ñëwee boo liggéeyul tamit moom boo boo boo taxawee ci géew bi wala nga léewtoo arbitre sifflé da ngay dinañ xam mbër bi carrément liggéeyul mais Balla bu liggéeyee bu ñëwee war na mën a daan bépp mbër ah. bépp mbër buy takk ngemb ci làmb ji Balla Gaye war na la mën a daan kon nag Balla moom lenn dong moo des mooy mu liggéeyaat ñëw euh, ngir affronter mbër yi nga xam ne ñoo si làmb ji ndax tey jii bëri na mbër yu ko mag yoo xam ni ñu ngi ci làmb ji ba léegi te ñu ngi wéy di kon nag euh, Balla war na mën a bëre ak ñoom ak ay rakkam parce que boo jaan rek la mayeegun sens am na yoo xamante ni ñu ngi rampe ngir yéeg ci kaw kon bu ñëwee Balla war na leen mën a may sens ngir euh, bëre ak ñoom kon Balla dese na ci làmb ji ba léegi dese na ci lamba làmb nag nii la moom boo daana moom lu nekk ngay dégg di nga dégg ñaan daa war a bàyyeeg daa jeexal ak entourage bi nii entourage bi naa mais sappoon ak a Baye jaay Baye Ndiaye rakku Aziz Ndiaye aussi tamit Aziz Ndiaye macha allah moom moom euh, depuis Balla tàmbalee ba léegi yeneen a ngi koy gis muy ànd ak Balla Gaye numéro de bu Balla di bëree moom lu nekk la ciy daj Baye Baye Ndiaye euh, borom alburaax rakku Aziz Ndiaye macha allah moom it ñu ngi leen di encouragé daal baax baax làmb nii la làmb nii la comme ni ko Lamine Samba di waxee rek làmb moom ñaari mbër yu mag entraîné mu nekk ñaari mbër yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp daal dañuy dem ba jeex arbitre sifflé non il faut am kun léng moom il faut am kun léng di ko muñal loolu mënul ñàkk ci làmb il faut ñun la muñal waaw kon nag bii ba waa Pikine ñoo yóbbu waa waa waa Géejawaay ñoo lëng yóbbu ni ni muñal loolu moom mënul ñàkk waaw Balla moom buy bëree moom faaw noonu lay demee waaw mais nag euh, yàlla baax na ñu ngi félicité waat Boy Niang baax a baax di encouragé kii di Balla Gaye euh, di ñaan rek euh, Boy ñaa boo amaatee combat yeneen i combat ndam topp ci Balla Gaye yow it noonu boo amaatee combat yàlla may la ndam incha allah yàgg ngaa bégal say supporters nag indil nga leen roi des arènes indil façon daan daan nga façon mbër bu nekk tamit waaw kon amatul looy prouvé ci làmb yow fi mu ne leen dong mooy lese mooy nga maintenir des sa waaw après nga gunge sa rakk Sa moom it mu nekk roi des arènes comme ni nga ko nekkee waaye moom looy prouvé ci làmb moom amatoo ko defal nga say supporter lépp lépp lépp lépp boo ñaa yow it euh, continuer rampe janoo ak Modou xarañ loo jël couronne bi yóbbul ko waa Pikine làmb ji ubbeeku waaw mooy loolu làmb ngi seen kanam yéen ñaar ñëpp